quartier Escale 2 bu Kaffrine fii saa su guddee kenn du ñeme génn ndax ñàkkum karange jaan kat ju bon ñàkkum courant ak i ndox bokk na ci li leen sonal. quartier bi depuis ñu ko sànceeg léegi daanaka léegi war naa am ay 15 ans daal comprendre nga ñun nag heure biñ fiy dëkk booba fakk dëkk la booba lotissé guñ ko. yàlla def ñu nekk ak ñoom ñu nekk ak ñoom de daw de daanu de daw de daanu bañ lotiseel yi yàggut xam naa ci trois ans ci lay war a toll léegi yaa ngi dégg ok léegi nag problème bi mooy problème ndox moom nangu ñi ci jàppale complètement dugal nañ loxo dugal nañ tànk ndax euh, sax am na suma benn morom bu nekk fii booba doomam ci pëg bi fee la ñuy rooti mos na fi am soog sapeur yi duñ bàyyi ma fen ñoom ñoo ko jëlee seen oto yóbbu ko hôpital yaa ngi dégg léegi ñemu ñoo jël xale teg ko ci sareet ne jàppal route nationale bi nga dem rooti yaa ngi dégg yàlla def ci ndimbalam paa bi nekk suñu wet fii ñu koy wax ñas moo ñu doon may fi wax dëgg yàlla jàmbaar la yàlla moo koy fay noor bi paase yow moo ñu yërëm ne leen ñëw leen ngeen root fii jaayuma leen dama leen da may te yàlla tax moom daa xàccee ci ODCAV bi ne indi tuyau bi fii. nañu wax ne Kaffrine lañ dëkk mais considéré wuñ ñu comme des Kaffrinois. parce que problème bu ñu am dafa bëri macha allah wax dëgg yàlla gis nga fii nii yëpp fu ñu wër nii gis ngeen ni mu mel yéen moom gisal ngeen ko seen bopp vous avez fait le constat gis ngeen ni mu mel juste ñun suñu problème problème ndox surtout xam nga doomu aadama moom ndox munoo nekk nit bu normal te nekk ak ndox ndox mooy nit te ñun ndox mooy suñu problème mooy suñu priorité moo ñu sonal sérieux waaw parce que début bi dañ doon jéggi raay bi ñun ñu yenu ay paan di jéggi ay raay di ñëw jigéen ñi daanu nañ ci sama tante yi daanu na ci baaraamam fëxëj suñuy paan toj nañ ci am nañ ci de sérieux problème comme ni ko sama tonton bi waxee problème bu nekk am nañ ko fii pour jéggi raay bi mais heureusement pa bi defar fii mu ñuy may ñuy ñëw di root foofu mais xam nga tamit nit munul jël euh, loo xamante ni da ciy fay xaalisam ne quartier entier ñëw leen ngeen di root di duy loolu dafa métti ñun pexe bu nekk def nañ ko pour am ndox mais mënuñ dañoo roota roota root ba suñuy pan toj dañoo roota root ba man amatuma tànk sax mënatuma dox ndax damaa jéggi raay fii lay yenoo kër ma jéggi def nii dem rooti samay pan di toj may faxastalu di daanu mënatuma saa yu ma yàlla may xiwalu téeméer ma dem jënd barigo ndox suma ma amut yàlla may nañu fi koo xam ne nag benn kilifa bu baax dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram ñu koy wax gis ngeen jigéen ñi ñooy root mais parfois góor ñi su fekkee ne tamit ñi nga xamante ni demuñu génnuñu ñu des ci ñoom ñooy obligé abu ji ay charrette teg ci ay bidon di pousse ngir mun a rooti wala kat da ngay téye bidon say loxo loolu handicap la si ñun. mi ngi soxla ndox ak kora ak jaake fii ñu amul jaake wax dëgg yàlla mi ngi jaake trop jaake fii daanaka daanaka un kilomètre dafa trop dina dégg dina dégg euh, noot yoo kenn mënul dem fii dafa bari jaan dafa bëri lëndëm amul ndox léegi laa root léegi ci bidon bi ci syndicat fële Escale 1 dafa sori. problème bu njëkk bi mooy ndox parce que islam dafa ne an min al iman si liimaa nit la bokk léegi nag boo seetul nooy mën a jaamoo yàlla yow amoo ndox amoo courant léegi ñun fii nii par exemple chaque jour dangay ngay barke ba bee ngay gis nii da koy jënd six cent da koy da ngay fay borom saret bi six cent pour mu dem indil la ndox léegi nag yow boo xëyee di wut dépense pour li ngay yóbbu sa kër amoo ko nooy mun a lijjante chaque jour yi ngay jëndee kii barigo ndox six cent franc xam nga loolu yëpp dafa métti. gis nga ñun ñëpp niñ ci limee benn yoon man maa ngi nii chaque jour benn yoon lay mën a sangu benn yoon dong dong dong lay mën a sangu suma diggante ak suma traayu bal daw nañ nag léegi ba sonn léegi balaa ngay dugalal benn entreprise boo xamante ne benn doomu aadama la ah kana ñaata kër a fi ne fanweeri kër ak juróom mu ngi fi 35. kër mu ngi ci koñ bi fii. quartier bi quartier la boo xam ne du quartier boo xam ne mu ngi ci àll walla feneen ci biir Kaffrine la ne mais li ma ci seetlu mooy poche lañ ko def poche la boo xam ne poche la boo xam ne bo bu ñu leen soxlaayee fu ñu mun a ne dinañ fexe ba ñëw jël si leen ànd ak ñoom ñu defal leen ñoom li ñu bëgg mais buñ paree ci ñoom. fatte nañ leen kenn du fi jaar kenn du leen nemmeeku kenn du lijjanti ci lu ñu ne kenn di xam ci lu ñu ne même tey boo jógee nga dem foofu di leen jéem a gis pour waxtaan ak ñoom sax c'est un problème yaa ngi dégg tey boo jógoon tey kenn ci ñun bu jógoon fii ne mu ngi dem seeti leen pour wax leen benn affaire problème lay am te du loolu man nag wax dëgg yàlla yàgguma fi parce que maa ngi fi doog a am huit ans te am na ñu ma fi jiitu c'est-à-dire que ñooñu ñoo ñoo gën a am xam souffrance yi ci nekk mais li li am solo daal mooy ak li ñu remarqué mooy ne quartier bi li mu manqué dafa bari te du yoon quartier bi nekkul à cent à vingt kilomètres nekkul à quinze kilomètres de Kaffrine c'est dans Kaffrine même au cœur de Kaffrine bilee anam la gox bi di Escale 2 di dundee te sax xamal nañ ne seeni maire di Abdoulaye Seydou saw dale na fàtte te bu ñu sañoon mu gëstu leen xoolal lampadaire yi rek dem nañ ba ci biir àll bi ci gannaaw soppar yi fee ñu ngi foofu nga jaaraat côté bii nii ñun fii wax dëgg yàlla même bu dee trois buñ defee koj bale ñaar ñu ñëw defal ñu fii ñaar mu xaw a tane bu dee benn wala ñaari lampadaire ñu tasaare ko ci quartier bi au moins ñun ñu am lumière nawet bi ak reptiles yi jaan yi fii moo ëpp jaan ci Kaffrine suñu xale am na fi benn xale boo xamante ne nii mu ngi nii taxaw loxoom bi dafa yàqu jaan moo ko maat yaa ngi dégg loxoom bi mu ngi noonu jaan moo ko def nii wallahi lazi tuuti ko noonu sax dañu tuuti mu dee mais heureusement yàlla kanam des na euh, fanam des na mu ngi nii taxaw mais loxoom bi lu ko yàq nii jaan la. su fekkee nee nañ ne. njàngkat bokk na ci li nga xamante ni moom mooy suuxat dëkk te loolu noonu tey si koñ bi nii xale yi yëpp ñu ngi nii dañuy jàngi su guddi jotee am nañ problème ngir jàng loolu tamit beneen handicap la man bokk naa ci ñi nga xam ne ñoom ñooy former xale yi maa leen ay former mais pour ma jànga leen damay obligé jënd ay batterie wala ñu jënd ay chandelle loolu nag pour nga def ko nag kon si encadrement xale day métti day laaj bëgg-bëgg day laaj détermination pour nga mën koo def ñu nekk ci biir dëkk bi fii lu ñuy sànni fii lañ koy sànni da ngay xëy suba teel fii di dem marché nga tëll fii gis fi benn saako weñ yi topp ko wame meme fekk benn xar bu dee lañ ci def xet bi duñu bëgg a rey duñu mën a nooyi duñu mën a nooyi xet bi duñu bëgg a rey xam nga nan lañuy mujj def xale yu góor yi ñooy jël pën a teg ci taal mu mu mu mu bi kii pour xet bi te xam nga ne tamit ñun ñun ay doomu aadama lañ yaa ngi yor xale yooyu yëpp xale dafa fragile dafa yomba fee man l'autre jour dama xëy sama doom bi wallahi lazi dama xëy midi ay suba teel dara jotu ko mu dem ba côté 13h biir bi di daw muy wëccu xaw ma lan la lekk xaw ma lan la laal il se peut quand même dafa dem fii daje fa ak dara laal ko loolu tamit indil ko loolu ba ma demee docteur daf na ma intoxication la mais man loolu lu ko ko def jusqu'à présent xaw ma ko mun na nekk ne salte la dajeel fii boo xam ne dañ ko fi sànni mu for ko lekk xale xamul dara muumin la salte yu nekk fiis si quartier bi yàlla rek moo xam fu mu toll waaw jaan yi lépp mu ngi fii ci biir kon te ñun ay xale yu ndaw la ñuy wax coono bu ne ñu ngi ko fii sonn. lii lañuy ñuy li nga dégg fii ñuy wax lu raw róoru moo fi ne li nga dégg ñuy wax fii ne tey fii poubelle lañ ko def lu raw loolu moo fi ne fii lu ne gis nañ ko fii lu dee dañ koy diri indi ko bii fii sànni ko fii léegi sax lañ commencé révolté parce que léeg-léeg ñu gis ku takk saret ñëw ba fee mu wóor la ne kii mbaam la bëgg a sànni fii wala xar ñu ñooy jog intervenir ne ko eh loolu nga yore yóbbu ko ba ca àll ba nga sànni ko mais su nekkutoon loolu konoon yéen nii bu ngeen fi ñëwee boo tul xet moo leen fi traité moo leen di traité toog fii ça c'est d'un de deux y tous les dangers ici comme ñi leen ko kii ñiy waxee tous les dangers sont la xam nga benn xale lañ leen woon fii koo xam ne nii jaan na ko mais il y avait un autre feene feene ngay gis ci mur bi la doon traversé ñëw ba foofu jànne ko capit doomu kii ndaw si toog doomam nga ah, xaw ma rakam ah y tous les dangers xaj yi da ngay gis les les ci xaju feebar yi da ngay rek benn xaj ne tël te yow yow yow xam nga xaj bu bu bu feebar li ci nekk bu la matee tuye futi da ngay dee xale yi ñu ngi nii gis nga leen yooyu guddi doo nelew doo nelew parce que yow moom obscurité ak ak ak ak ak ak humidité la bëgg te fii loolu moo fi ne. ñun nag dañoo bëgg ku ñu jàppale te yàlla tax amuñu doole ay baykat ñu amul doole lañ yaa ngi dégg bu ñu xëyee ñu ngi dem gars yi wàccaguñ sax maire bi mu ngi yor fii ñeenti xale yu góor yoo xamante ne ñëpp dañoo xëy wàccaguñ man gis nga ni ñu ma gisee nii kii moom ma woo téléphone léegi maa ngi bàyyi sama sareet bi ci àll bi. ma daw ñëw fii sonn nañ de fii sonno yem nag lañ sonn ñun dañu bëgg ñu ñu considérer ñu def ñu ne ñu an Kaffrinois lañ man lu ma gën a métti mooy lu ñuy wax escale parce que ñun buñ ñu ñu escale loolu erreur la ban escale yaa a rien d'escale ici quartier escale baa ngi nii demal foofu yaa tout lu ñuy wax quartier lu ñuy escale ñun fii Kaffrine boo ne escale mooy mooy quartier bu gën a bu gën a normal ci Kaffrine mais ñun dañ ñu ne escale la ba pare xolal lii lii escale la. heure bu affaire euh, politique bu jotee dañuy ñëw taxawuñu wee wee wee wee a fi ne nangam nangam xolal fii jeunes yi yëpp jël nañ leen ñu ngi liggéey quartier bi benn jeune liggéeyu fi ñun ñëpp ñu ngi toog jàng am suñuy diplôme kenn kenn kenn liggéeyu fi te ñun euh, ginnaaw yàlla ñun ñooy suñu yaakaar waaju monsieur le maire Abdoulaye Seydou Sow la ñuy ñaan parce que moom tey jii nii moom moo fi yore ndombop tànk bi nga xam ne lu ko fi neex mu def ko fi ci luy baaxal Kaffrine ñu ngi koy ñaan na gestu jigéenu Escale 2 ak góoru Escale 2. te nit bu la amee fum la féetee na nga am foo ko féetee koñ bi ba mu daj amul kenn koo xam ne nii bokkul ci ci ci ci ci seen parti yi yaa ngi dégg tey sax boo doon calculer tey laay soo mii nga am ne tey c'est le maire de Kaffrine maanaam koñ bi yëpp ay militants lañu koñ bi yëpp ay militants lañu dégg ñoom ñëpp bu élection amee moom la ñuy votel législatif yi passé yi moom lañu ñu votel tey tey boo gisee tey ñoom ñu ñu am ndam mais benn carte rek bu c'est pas à négliger une seule carte c'est pas à négliger parce que mun ngeen dem ba au dernier moment une seule carte moo moo moo moo leen mun a départager ah donc nit ki bu la amee fu mu la féete yooyu am na am foo ko féete ce que nous demandons messieurs qu'il nous donne de l'électricité, qu'il nous amène de l'eau, parce que l'eau est vitale, comme on le dit. L'eau est vitale. L'être humain a besoin d'eau à tout moment, à chaque instant. Ça, ça, ça, nous le demandons. En plus, nous demandons une mosquée. Nous sommes des musulmans. Nous avons besoin de prier. Aujourd'hui, pour prier, il faut aller jusque là-bas ou aller jusque là-bas. Mais avec tous ces dangers qui sont là, là, Mais il y a des risques. Il y a à courir. Le matin très tôt, à 6 h du matin ou à 5 h du matin, c'est le, le, moment où tous les reptiles se lèvent. Mais on peut, on peut croiser un serpent ou autre chose, ou un chien malade, ou je ne sais pas. Parce que ici, tous les chiens, le, la nuit, vous venez ici, mais vous rencontrez les On, on, on, a eu la chance de ne, pas, de ne pas avoir de problème avec les chiens, mais l'année dernière, ils étaient nombreux jusqu'à ce que le service d'hygiène, ils, ils, se sont chargés de, de, de ces chiens-là. Ils, ils, ils, en ont tué beaucoup. Parce que c'était l'excès. Partout, il y avait des chiens. Donc, nous, ce que nous demandons, monsieur, est que ces gens-là, qu'ils pensent à nous, qu'ils sachent que nous sommes là toujours, qu'ils sachent qu'au moment où ils venaient nous chercher, nous étions, nous, nous étions là, mais nous sommes toujours là. Et attention, un jour viendra. peut-être un jour, ils, ils, auront encore besoin de nous. Et si ça continue comme ça, la prochaine fois, je crois que nous allons leur tourner le dos. Hein. Ça, on n'hésite pas. On n'hésite pas à leur tourner le dos. Parce qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de voies qu'on peut utiliser. On l'a aidé, on l'a suivi depuis qu'il était, qu était là. On l'a suivi jusqu'à maintenant, c'est un ministre. Il a vraiment maintenant, les cap il est capable de faire beaucoup de choses. il est capable de faire beaucoup de choses. Il est capable de faire beaucoup de choses. Nous, le, nous, nous en sommes conscients. Nous savons ce qui se passe. D'accord, nous sommes isolés, mais nous sommes instruits. Imaginez tous ces jeunes qui sont là. là. Et combien de jeunes il a utilisé, ils ont pris ici à Kafrine Combien de jeunes depuis qu'il a commencé son, son, son, son recrutement là Des milliers et des milliers de jeunes sont recrutés ici, mais pas un seul dans notre quartier. Pas un seul. Pas Et pourtant, il a des diplômés ici. La, la fille là qui vient de, de, de, de, de parler là, mais elle a, elle a, elle a, elle a son, le niveau, son niveau de bac, elle a fait trois, trois fois le bac. Il y a, il y a, il y a ici, dans le quartier là, des, des, des, des, des jeunes qui ont, qui ont leur, leur BFM. Il y a des jeunes qui ont leur, leur, leur bac. Mais, mais aucun jeune n'est recruté ici dans ce quartier-là. Aucun. Aucun. C'est pas sérieux, monsieur. C'est pas reconnaissant. c'est pas un acte de, reconnaissance parce qu'on l'a beaucoup aidé on l'a beaucoup aidé ce monsieur-là on l'a beaucoup aidé on s'est battu on s'est battu pour lui ce monsieur-là qui est là devant il, il peut vous dire beaucoup de on s'est battu les enfants sont battus pour lui ils, ils ont tout fait pour lui mais ils n'ont rien gagné chez, chez lui rien du tout